seen mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba mi tax ñu tal ko ah ñu ngi ñaanal bu baax Serigne Mountakha sunu borom guddal aw fanam wéral ay cëram mbokk yi nag bu ngeen gisee nii ngeen ñu def ñu ngi ànd ak seen télé eh, Touba Assalaamy TV ak it LTV LTV ñu ngi ànd ak seen télé LTV ak Assalaamy TV eh, ñëw fii. Euh, ci Bichri lay di dëkk boo xamee ni benn dëkk la ci réew mi ci tund bi di dëkk bu mag dëkk boo xamee ni euh, alxuraan cosaan la fii la alxuraan cosaan la fi dëkk la boo xamee ni euh, dañuy ñaan yàlla ay yonte bi mag ña suñ borom fayal leen leen ñu feggoog nag kenn ci fii ci Bichri Leye muy Baye Serif Naar ñuy ñaan yàlla sunu borom yàggal jataayam bii lool lépp lu mag ñan naa lan ci dëkk bi ñu ngi ñaan ci doole Xaadim Rasul sama borom dëbb ko kattan ah bàyyi ma kookum xelam ba mu yeggale ko ba naal ay naalam ak ah, ñun ñëpp ñu ànd kook moom ak ah, kon Baye Serif dañuy lay sàkku rek nga yëkkati lenn ci kàddu ci dëkk bi ñun ñëpp bu ko defee ñu bokk commencé di. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi man Serif Leye maa ngi leen di nuyu. farafala sunus Muhammad sallallahu taala ci barke Seexul Xadim baax na maa ngi leen di sant te di leen gërëm. yéen yow Moustapha mi fi ñëw ak lu baax ñi nga àndal ñëpp ngeen di sonn ngir yàlla ak dis bi. mu mu Mourou Mbaye ak ak ak ak ak bokk yu baax yi ngeen àndal yëpp. di leen sant te di gërëm. mënuñu leen waaye nag yàlla mi nga xam ne seen du jeexal dara ñun ñaan yàlla yàlla fay ñu leen. dëkk bi nag dëkk la boo xam ne si ñu ñun fi desante. waaw ñàkk solo la noonu waaye nag mag ñu baax ñi nga xam ne si suñu borom dogaloon ñu nekk fi ñu di ay taalibe di ay jullit di waa kër Cheikh Al Khadim ak kër Cheikh Massamba xamuñu lu dul liggéey ak jàng alxuraan loolu mooy cosaanal dëkk bi ku leen xamit ci loolu nga leen di xam sant gu gi nga xam ne si ni am nan ko ci mag ñi nag ak seen jëf yu baax yooyu nga xam ne si daanu gis ñu daa ko jëfee daa ko liggéey liggéey boobu ñoo ngi ñaan yàlla yonent bi Serigne Touba. Ah, ñu ñàkk solo ñii ñu fi des ci seen ginnaaw. suñu borom dogal ñu ko te jëfee ko. te jàppee ko nu ñu ko jàppee woon te di leen ñaanal. suñu borom mi nga xam ne du jeex dara fa ñu nekk. mu defal leen fa ay xéewal yu kawe seen dort yoo xam ne si ni taalib yëpp dana ci xaj julli yëpp dana ci xaj. te kàttan yàlla yonent bi barke Serigne Touba. ñoo ngi ñaan te doole Cheikh Moussa Diop. Massamba mi nga xam ne si ni mooy suñu wàccukaay. ci àdduna ak àllaaxira ñoo ngi ñaan si yàlla borom lu njabootam gi nga xam si moom la fi bàyyi. Mhm. yàlla boole noo moom te tey jii dégg nga maam Cheikh Bass mi nga xam ne si moo ko fi nekk dégg nga maam mooy mooy suñu cëslaay. Mhm. mooy suñu yaakaar adduna bi yàlla àllaaxira. Mhm. ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool. te may ko wér ak ak rakk ñu fi nekkal yëpp. ak bokkam ñu fi nekkal yëpp. ci kàttan yàlla yi ci barke Sëriñ Tuubaa waaw yéen taalibe yi nga xam te ne si di ay bokk di ay jullit di ñëw fi mhm. ngir yàlla ak bis bi tam mhm. nga xam te ne si ni suñu yaakaar yëpp ca la ca la nekk mhm. ñoo ngi ñaan suñu borom suturaal leen te yàggal leen fi te bàyyi leen fi ba nga xam te ne si li ngeen nësri ci lu baax lépp suñu borom di jàpp leen ci ba ngeen am ko ci barke Seexul Xadim ñun moo amuñu seenu euh, pay waaye nag yàlla moom mi nga xam du jeexal dara dañu ñaan yàlla mu fayal ñu leen kon yàlla na leen yàlla boole fay yàlla na yàlla boole taxaw yàlla na yàlla dimbali ñun ay taalibe noonu rek ñu fi nekkal Serigne Touba ak Cheikh Massamba kon jërëjëf jëf sant nañu yàlla bu kon mu mel ni eh, maam Baye Serif eh, xale yi nga xam ni danoo taxaw ci seen ndigal eh, taxawal bis boo xam ne si ni ak loo xam ne si ni maanaam ah muy si loolu yow li maam yan kàddu nga ciy yëkkati loolu mooy cant gi nga xam ne si moom leen sant ndax mag ñi dañoo bëgg noonu du lu baax bi nga xamante ne si ni yàlla su borom dogal na ñu ngi poyantit moo xam ne si génn ci seen ron itam ba ñëw ñu ngi xalaat dégg nga maam doxi mag ñi ca la ñu xalaati lii biñ defee xalaat loolu buñ ko amee ñu delloowaat leen ci sëñ Bas mi nga xam ne si ni mooy suñu yaakaar fii ci buntu euh, Cheikh Massamba moo leen tànnal bés bi jox leen ko ñu di ko dundal ñu am ci cant lool ci moom ko joxe moo leen tànnal tur wi. waaw moo leen tànnal tur wi. mu um, defal leen ko Seydi Rahim. Mm-hmm. Mm-hmm. buñ ci laaj jëf ñu waxtaan bu am ci moom mu def ko. Mm-hmm. ñu waxtaanee ko bokk bokk yëpp ànd ci. yëpp ànd ak dëkkandoo yëpp ànd ci. kon loolu tax ñu du leen jokkee sant te xam ni yàlla mën naa dogal ñi nga xam du jeexal dara mën na leen dimbali liñ ci bëgg lépp ci yaakaar yi àdduna ak àllaaxira sunu borom defal leen ko. kon jërëjëf alhamdulilah. ah jërëjëf kon mu mel ni eh, seen télévision Assalaamy TV ak Ili TV ñoo ànd rek ñëw Bichri Leye eh, ñu woon nii feggoog kenn jëmm joo xam ne si ni ah ndeysaan ñu ngi koy xoolee fii ci borom dëkk bi muy Baye Serif Leye ñu koy ñaanal nag yàlla sunu borom yàggal ko fii ci wéral ko ba yéene mag ñu baax ñi fi nekkan sama borom def mu yeggale ko ba jëf-jëfam ca naan ko moom ci barke Serigne tubaa kon daal eh, kon Baye dafa mel ni kon dañuy tàllal loxo yi rek nga ñaan ba déwénte jam asalaamaaleykum ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen télévision Assalaamy TV ak Elite TV tey dañoo dugg Mboussoura ah, ñoo ngi jóge léegi ci Baye Chérif mi nga xam ne si ni mooy borom dëkk bi waaye nag ñu tàbbi ci béréb boo xamee ni si kenn ku ne xamal na jëfam ak jikkoom ju rafet ak bëgg bu bëgg Mboussoura yal nañu ko yàlla fayal muy baay Mor Gueye tey nag ñu jàkkaarloo ki nga xam si ni moom moo toogub toogaayam yàlla na yàgg ci wér muy sëñ Dame kon dañ lay laaj lenn rek ci dëkk bi ak euh, doxinu dëkk bi ak lenn rek ci bokk yi ak bis bi lan moo ko waral waaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yéen mbokki yi mbokki taalibe yi kenn ku ne ñu ngi lay nuyu sa tur sant nga xamal ne bis bi moom day taarix ci lislaam daal ndax wax nañ ne li njëkkee xéwloo Touba fii lañ ko bayee ci àllarba jee jox ko sëñ Massamba Diom mu ko sa mu ko ku tedd ki kon dëkk bi lépp loo fi gis rek cosaan la ah yow Modou Mbaye nag yow moom lii comme la ma la ko waxee rek Sadio yàgg na ak jaar maam la ba léegi. Eh, may leen ñu wàññi fukki kàddu yi olof Ndiaye wax ne du yàgg dëgg la ndax buñ masaa woote àllarba sëñ ma Diop. Baye Mbaye Kane ak Baye Moudou Kane ak Baye Kayel Mbaye ñoo daa jiite di woote nekkul ne ñu jiite yor ay dë ay dënd déedéet dëkk bi dëkkub dënd wax la ak jàng ak lislaam dëgg la kon Modou lii bu ñu leen ko joxee ngeen yor ko nii jox nañ leen seen alal kon euh, bi sëñ daam bi nga xamante si nii mooy xalifa Baye Mor Gueye yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko euh, daal bi mu wax ni ko euh, maam yaa ah, maam doy na ma ci lépp ndax it nag dafa am tuuti rek lu nuy laaj rek maanaam ci li nga xam si ne maanaam xale yi Euh, ci seen jikko ndaxte gone tuddul gone ku la tudd kon nii gone Bichri def euh, daal di wut seen daayira boo xam si ni Baye Chérif na ko léegi ci jëmm ju baax ji di sëñ Bas Diop di sëñ Basiru euh, daara sëñ Bas Diop alxuraan di sëñ Basiru jóob alxuraan yaakaar naa moo leen ko tuddee moo leen ko wutal mooy maam Sinatrayin muy Sinatrayin di tur woo xam ne ni fii nii tur am solo la fii nag di bërëb boo xamee ne ci ni jëmm ji fi nekkaan kenn ku ne xamal na ko ci Bichri ci mbaaxam ci bëggam lu baax ak tam nag ñi ma péete waaye nag fonk boppam fonk gi fonk boppam moo taxan képp ku mu jaxasoon dina la fonk muy Baye kon yow lan nga xam ci xale yi nga xam ni ca gone yi bu ne gone gone ku ne la tudd kon bu defee jëf ji tol nii defee ko fii nga xam ne ci ni lan lan def ba tax ñu def ko lii maam ci mag ñi <laughs> sëñ Modou ñu ne ziar bu baax di ziare mbokk yi képp ku teew ki Boucher Relais ñu lay ziare bu baax rek di leen wax baax a baax a baax te xam ni bis bi moom ah, dafa rëy ci noonu lool. waaw dafa rëy ci noonu lool lool lool lool ba amul dayoo boo xamante ne si mën nañ koo jox ndax rëy gum rëy ci noonu ndax bis boo xamante ne si bisu dundal diine la bisu fàttali ko mag ñu baax ña bisu di leen ñaanal bisu doxum mbokk bis boo xamante ne si daal. des na ci jokk lépp lu baax kon bis boobu képp koo xamante ni si ni tee nga ca rek man nga dalu xel ni suñu borom gërëm na la daal ci bis boobu ginnaaw loolu nag suñu waajur yi nga xamante ne si ni mooy suñu morgo la yoo xam ne moo nu meññ mu dale ko ca jaalo ba caalale gi egsi ci moom ba xamal suñu xalifa bi moom la fi bàyyi muy sëriñ Ndam lay suñu mag dañ sant di ko gërëm ndax lépp loo xamante si suñu waajur wa taxawoon noonu taxawoon nañu ko rek moom mi taxawoon nañu ko féetewu nañu côté boobu bu baax a baax a baax ci saa yi ak ci bari ci lépp rek loo xamante ni suñ ci lu baax la mi ngi ci taxawoon di di di diñ ci teete diñ ci womat jëmale ci lépp lu baax lépp loo xamante ni ab safaan la mun ni koy moytu loo kon dañ koy sant di gërëm ci bis bii nii xam ni lépp loo xamante ni si daal bis bi ñu ngi cay sàkku dañ koy jaar la ci loxom bi pour pour jële ko ci moom bu ko jële na ko am ndax mun noo am lu ko kaw ndax mooy suñu waajur moom moom moom moo fi taxawal suñu taxawal waajur kon nañ koy sant di ko gërëm bis bi nag xale yi ko taxawal dama taxawal lu rëy lu màgg ndax bis bi nu na fi di fàttali ko ay maam nan daa dunde ndax Serigne Touba dan daan aayal noonu danoo jébul képp koo xamante ne dangaa jébulu da ngay fàtte lawan ca ginnaaw mhm. li ci kanam rek ngay mën a teg bët muy Serigne Touba noonu suñ lépp da nga ko wékk Serigne Touba kon néewuñu di fàttaliku ay maam waaye nag dañ leen di fàttaliku pour di leen ñaan rek dañ leen deseel ak ñaan la leen deseel da ci des nag ñun xale yi xam ñoo dajal yi def di bis bi defuñu ko dara pour li dul xamante ak fàttalante ak ak nemoonte ak nemoonte ko pour ñu xamante ndax bañ a am dara ëllëgee su buñ tasee ci mbedd ñu réeroo ko ba xamante ne si ëllëg dara a dara mën na caa ñaaw ndax bis bi li ko sos parce que noonu la demee woon ñaari xale yu tase woon di mbokk réeroo ci biir nar faa jàppante moo sas xale yi ko sos ñu ñu sos ko ndax nit ñi sax sos ñu ko suñu ko sos te ñoom ci ñoom la xaw xaw amee woon kon ba amee ñu ñu ko ñoom def ko dañ def loolu sant leen ci xam ni taxawal nañ ak mbokk dundal na ak mbokk suuxat na ak mbokk euh, gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam ni euh, Assalaamy TV ñu ngi koy liggéey ak Eli TV ci biir bu Suraley muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la euh, gis nga bi ñu jógee ci bàyyi kër Baye Serif Naar bi ki nga xam mooy borom dëkk bi dugg ci kër fii di kër Baye Mor Gueye waaye fekk fi taawam bu baax bi di sëñ daam ñi ñaan yàlla suñu borom mu sut suñu waajuroo fante defee barke ba dégg nga kàddu yi mu fi yëkkati waaye da koo daanele baax jooju mu yeggale ko dégg tam gis ngeen tam soxna su baax si nga xam ne si ni gis ngeen li nga xam ne si ni moom la sëñ bi wax ci moom ci ay jikko yu rafet ak it ab jitaayam ñi ñaan yàlla sama borom jitaay bi yàggaloo ci barke borom Tuubaa kon daal kon noonu la ñuy def rek doxantuwaat kon ba ci kanam Euh, ñëw fii ci bisu Relais di bis boo xamee ne si ni di béréb boo xamee ne ci ni béréb la bu yàgg histoire fii ci bisu Relais euh, ñu jàkkaarloo nag kenn ci magi bisu Relais muy Baye Mbaye Ndiaye moom Mama Ganda Ndiaye nga xam ni nga xam ni si ni euh, wax dëgg yàlla alaaji alaaji Mbaye Ndiaye moom Mama Ganda Ndiaye nga xam ni si ni yaakaar naa ku ko dékk micro di nga dégg lenn loo xam si ni ci dëkk bi ah di ni du ni mosoo ko dégg de waaye boo ko ah, ndax mas nga ko dégg ndax moo la koy wax waaye bu la ko noppi di ko kon sëñ bi dama bëgg mu gën a mu gën a simple rek. waaw bisimilah rahmaani ak taalibe fi ñëw yëpp. maa ngi leen boole nuyu akub siyaar. maa ngi leen di boole di leen nuyu. di leen siyaare. di ñaan yàlla ak yonante bi. ak barkeb sëñ Tuubaa ngeen yàgg jëf lii. te bu ngeen ko jëfee mu tombeek muy jëf ju sunu borom nangu te def ca barke boo xam ni du ngeen seeni woon lu tol noonu te yàlla yàggal ko ci seeni loxo ba ko mu tax a jóg sa yitte faju ci barke rasulullah amiin eh, xam yàlla nag xam ni yàlla tëriwul loolu mën na fa waay mën a xëye jéego ba nga jëkk a dox sa aajo faju eh, eh. kon yàlla tëriwul dara Euh, noo ngi leen di sant di leen gërëm ci seenu taxawaay ak seenu melo dëkk bi nag yàgg na ci baax ndax baax rek lañu ko sance woon euh, danaa leen ci wax rekk ay ay dal te dellusiwaat ci gone yi euh, sëñ sëñ sëñ ma kumbaley ba mu jàngee gànnaar ba dëpp ba mu dalee taxaar ga ca penku mbelgoor juróom-ñetti ndongo laa dalal fukki kaamil ak ñeent la yor boobu ba mu dikkee foofa am fa ñetti fan booba foofa mooy mbelgoor booba mbelgoor xaar mboojo ko sanc moo ànd ak sën ak jëriñ ak maysa sën ak Malick Fall ay doomam moo leen jur Malick a génn di doxantu yem ci ma kumbale ca Dakar ga nuyoog moom ni ko sëñ bi yow looy def fii mu ni ko ah, ma de dama fee dal di ànd ak samay dong ñu yelwaan ana nga jógee mu ni gànnaar alu ah, ca mu ni damaa jànge woon léegi nag mu ni ko damaa mokkal di ñibbi siin mu ni ko waay sëñ bi yow yàllaa ma la jox mu ni ko ah mu ni ko dama fee am sama caatu nday moo xam ni nanguwula sëyakub ceddo ay ceddo lanu waaye nanguwu cee sëy moom Euh, Maysa Sène daal saa xewal sëriñ ñaxëj la ñu ko yëtan mu am ca benn doom bu jigéen góor gën mu ñibbisi booba tey mi ngi fi ni ku munta jàng kamil mbaa nga mën koo bind mbaa nga mën koo jàngale doom a takk mu ne ko anama mu ne ko mi ngi ci kër gi mu ne ko nan fa yegg ma gàttal ko lool nan fa yegg mu yegg mu ne ko dama ni li ko lal taay moo di dërëm nag bu ñu wuli lalal ko ci mbel goor fawub dorob lal ca tàng ndox yot ko sukk yegg suuf ci moom mu ne ko waxal la nga waxan mu ne ko dama ku mën a jàng kaamil man koo bind man koo jàngale laa bëgg ci sëriñ biri ma am na fi ñetti fan andi yettee ndaari wurus ak yettee xaalis ak juróom benn nag ak ñetti jaam waaye damaa muuróo seen bàyyi ñëw ci moom nanguwul a gis saa bët hmm. yow mii laa bëgg cib sëriñ góor gi ni ko ah, li nga wax de dëgg la taxaar ga fukki kaamil ak ñeent nga fa juróom-ñett yi maa leen bind juróom-ñett ñi ma jàngale leen bind kaamil bi may jàng jukki bi ma ci des mu ne ko laa bëgg ci sëriñ Mali ni ko dinaa la ko may bu ngoonee kat càmmiñ mu may ko ko mu ni ko danga koy yóbbaale siin mu ni ko duma ko yóbbu siin daa gent njuur cooxaanee fa ne du dem di ko yóbbu ci ngelaw li damay dem ba sama bokkee sañcel ma ma jël si ko looloo ma indi siin man gay jóob moomee des mbel goor soxna Fall ñeet ko kumbalee siin mu am ci Anta Ndaak képp benn doom bu jigéen faatu mu fab doom ba bay ko may ko mbay joor jeng mu am ci ma Samba Anta Ndaak Mële Anta Ndaak Aminata Anta Ndaak mi sama mhm. xam nga sa bopp de ah waaw gay jóob moomee ñu fa baan biri ma nelaw dameel sama yaayu falu takkal ko siini debba sukka mi topp ci biri ci ci ci jéeri ay sa tey sa jëy fatim penda la mag kookee nag kookee nag moo jur Koddu Fall ak Rouba Fall ak capitaine Amadou Fall ma des bomb ci moom la ñu ko essayé bomb bomb ah. biñ jëkk tal hmm. ci waa senegal hmm. capitaine Amadou Fall lañ ko fetalal amadu Fall mennam Amadou Fall moo Koddu Fall ak Rouba ñoo bokk ndey ak baay Siini Fall gay jóob la seen ndey tudd seen baay tudd Siini Fall Samba yaayee ko ci ndaa hmm. waaw waaw eh, nag yooyu yëpp baax na waaye euh, ma dellu siin ma sàmbaante ndaag ak ma leyante ndaag buur mu soto ci ndax ñoom dañoo yor gàllaaji sëriñ yor neex baaraami ceddo mm-hmm. am nañu jigéen Aminata lay kooku la ah, Jóob Baro jël Jóob nag li ko may moo di Jóob Baro Jóob mm-hmm. li ko ko may ba mu am ci Asan Baro mm-hmm. Sene ba Touré ak Fatim Touré mi jur xaar mbooj ñoo bokk ndey ak baay ca Gana naa del bi gone yi te bàyyi foofu ndax foofu dama fee sori ba eh, xam naa ni eh, kenn ku ne lu ma bokk moom ci réew mi xam naa ko man mm. ndax itam lu la nit di digal mën nga koo ba a xam waaye li ñu ma ci digal te xam ni nit ma ko wax ma wax la cosaan li pour nga xam ko mm. soxna suñuy wax Kumba Njaay Kumba Tóol Taal mm. nday Kumba Njaay mi jur Mama Sawaare ba sama baay demee Bawol te ñibbisi te ma leen jege moom bu su nañ ma jëlee li ma gànn dama koy jox doog wi ndax suuf si yëpp ñu sant Njaay ko gor ci dëkk bi. ma ma a Njaay moom. moom mu jëli ko bawal andi ko fii. mu ni ko ma na mu ni ko mu ndax xam nga kenn ku bokkoon ci sa ña fi sama am mu ni ko xanaa ma laaji ko sëñ Alsaan dem siin bàyyi Alsaan ni ko kumba tool taal moo ci des ma nga ma nga ma nga fanay waaye buuf na màggat na sama baay mbaam la takk solte saako xetax kumba tool taal war ca mu yoru bi ab mu toppal ko diggu ak pal gutt mooy tax bi am ñaari gutt nii mu duy ko ndox mu toog ci mbaam mi muy dox di guux sans bàyyi ngëp ca nopp ñu topp taxaar kalamba ba waaw hmm. topp ànd ak ànd jege hmm. ñu topp taxaar kalamba topp màlle topp yoonu toora yooyu sama maama ko gor bu ay kilomètres ah hmm. ko goree ba busura busura gii tudd na kër biram njéeme fukki weer ak juróom benn ma kumba lay soog a jóge si ñëw yendu seeg moom mu ganale mu ni ko biram njéemé mu ni ko njaay mu ni ko fii kat bi ma la fii indi damaa bëggan boo nuppee nga woo jël ci samay doom kenn ma moomale ko dëkk bi mu ni ko ana ko mu ko bëgg mu ni ko jaalo mii mu ni ko jaalo yaa moom dëkk bi tey kenn du ba kon xanaa kon moo tax ñu naan jaalo jàkkeer ja waaw kay jaalo fii ah. mu ne ko jaalo yaa moom dëkk bi tey kenn du bàyyi pénc kenn du bàyyi pénc mu toll ni yang-yang mm. ñépp di leen yët galab nga gedd ko gàddaay dikk di wut penc feneen yaa moom dëkk bi yor na ko yaari xat ci yaari at yi ci la Babacar Tabari seen maam juddu yéen saa maam am fi ku ñuy wax Boy Njaay mu topp ci Mbaar Njaay mu jur ma Gànna Njaay mu jur moom fii la juddoo xaar mbaar nag ñoom ñu nga juddoo sugeer yaa ngi dégg léegi nag maa ngi dellu si sama gaay yi lii mënuñu ko bañ a def parce que loolu lañ doon baax rek lañ doon li leen yàlla gën a dimbalee nag booba sëñ Tuubaa siiwul ni mu siiwee fii mu ne ñii bi ñuy judd ñëpp fekk nañu képp ku ne xam na sëñ Tuubaa xam nañu ne foo ay mën a jëm te jëmoo ci da pers ñoom ñëpp ñu fax wuti ko ñi fi desan te fekk ko feet fax topp ca ñëpp ci ànd yàlla dimbali leen nag jaamu yàlla lu neex lu yomb la ndax saa yoo jaamoo yàlla fukk suñu borom tekkee juróom-ñeent fukk muy téeméer bu dee dëgg ci yow boo jaamoo yàlla fukk suñu borom tekki juróom-ñeent fukk muy téeméer nuru ko te du moom nag a baaxul waaw ñii nag jàmbaar lañu yàlla dimbali na leen nangu nañoo jàng xamal lëf nangu nañoo liggéey jaamu ko ci yàlla la ndax danaa la ci seere lu bariwul gone gu dëkk bu suraa ngee nga gis ko ci kaw yoon muy tox kenn musu koo gis dëgg kenn ku masam man di naan sàngara kenn musu ko cee gis kenn kuñ ci dem déye ko mu fayal ko càcc mosu koo gis kenn ku ci lekk ji alal jàmbur daw ñëw fii di nëbbutu mosuñu koo gis loolu kenn waajalu leen ko sunu borom ma leen ko waajal kenn mun koo waajal sa doom kenn mun leen ko waajal kon maa ngi gërëm yàlla gërëm yonent bi gërëm sëñ Tuubaa mais fekkee loolu lii man te xam ne lii kanam la jëm dootu yàqu hmm. ñii moom hmm. xaw ma ñenn waaye dootuñu yàqu te lu juddoo ci ñoom du yàqu hmm. sëñ Tuubaa du defar lu yàqu déedéet tey seenu ñax dem na ci Sëñ te am nañ ci positif ñoom noppi nañoo yàqu mbaa ñu yàqu yal na yàgg lool maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp Baye Mbaye mu mel ni bi ñu ñëwee dañoo fekk yenn kilifa ñenn ci kilifa yu nekk ci sa néeg bi mu ñen ak ñen waaw ñooñu de samay bokk lañu ndax sëñ Seexu naa Jóob a ngi ci biir sama sëriñ eh, xaar faalum maasta faalum jokk la nga fi mm. laman faalum maasta faalum jokk la nga fi mm. ñooñu ñu yàgg ci réew mi lañu waaw ñu yàgg ak noonu lañ suñuy bokk lañ te yàgg nañu noo toppatoo yàgg nañoo jaxasoo ñu gore ñu baax lañ dégg nga euh, li ñu yàlla defal dafa jafe fii mag ñi dëkk nañu fi lu yàgg gis sëtub sëñ ma sàmba da leen di jafe nun tey boo tàllalee sa loxo foo taalal teg ko ci loxol sëñ ma sàmba moo lay xamal ni lëf jóge na foofa ñëw fii dëgg la dara ngi fi lu fi jógut mm-hmm. te day yokk kon ma am yaakaar ci yéen bu baax yal na ko yàlla yàggal te dolli leen a taxaw dolli leen a ah, maanaam nag lii dafa gàtt waaye ba ma kumbalee yónnee Ablaye Diop mu war beles hmm. beles sama fasu maam sama wajanu maam la woo hmm. war wooy biram jéemi kumba sugeer pour mu sanc bu suga hmm. bu fekkan ni eh, dafa gudd dama leen di wax kere jëm li xëyee fuuta ba ba mu wàccee daay googee tàkkan ca sugeer ca ca ca ca mbelgoor lëy moom ko ma wax leen na mu demee xoolal fi mu ne ñu baree ngi am erreur jëm li mos ta yónnee benn dëkk bu mu sancal yónnee ca ndaw ni nañ ma yet asaka yi mosu koo wax ci àdduna lu ko waay jox yaa ko jox ndax ba dongo yi muy jàngal waaye ndawal jëm lii ngi day laaj asaka ndax moo suuf si kenn mosu koo gis ko ku jàng la ku xam la dara toppu ko jëm li jëm li li fi des nag hmm. koo gis muy laaj asaka kërët di suuf di dogle naa danga may jox nangam ak nangam kooku deful la maamam defan te amul xam-xam itam waaw ndax suuf dameel ba muy wàcc fi la ko fekk ku baax ku ne ba muy wàcc ci la ko fekk ñi xam baax ga te di ko baaxal nag ñooñu ci am saas jëm li dara topp ko moom. jërëjëf jërëjëf. waaw waaw ñi sant lay nañu xam ne jëm seen maam dara topp moo sancal ñëpp waaye mos a yónnee kenn laaj ko dara. lu ko waaye mas a jox. donc nga yamuy jàngal sax nga yónnee ko ko mu dundale leen ko. Hmm. waaye boo ma joxul barab sàngam doo bay barab sàngam. Hmm. mosu koo wax. jërëjëf lay jërëjëf ah, loolu ñu sant lay ñu ngi nii xamuñu ko de. ñu bari boo leen a xamuñu loolu. noonu nag li nu xam. Hmm. mun nu koo wax fii noonu. ndax waajaluñu ko waaye bu fekkee dañ maa yónnee woon ndaw ci suba. dana kenn ku ne. Mm. la fi indee la ko. yow moom suñuy maam fi daje suñuy ba sama mag sama baay fi daje benn bis benn bis noo ko daje fii ci Busiri waaw waaw Busiri nag suñu borom yàgg na fee def ndimbal mm. naka jekk dafay ab dëkk bu yàlla def ndimbal ndax ñi fi jaar ñëpp suñu borom def leen ñuy kilifa yu baax yu laabiir yu nangoo boot ñi ci nangoo ànd ak ñoom di jaamu yàlla yàgg nañoo topp sëñ ma sàmb fu mu jëm waaw sëñ ma sàmb nag mos ta bàyyi sëñ Tuubaa sa maam Abdou Xuja daana ma wax bu la kenn man ci yoonu sëñ ma sàmb mm-hmm. ndax kat man kat sëñ ma sàmb ba muy topp sëñ Tuubaa maa ngi topp ci ginnaawam yéen ay téere dégg ngeen kaddu yu am solo yooyu euh, Baye Mbaye Ndiaye wax fii ci ëtt bii nga xamee ni si nii ëtt Mame Magana Ndiaye la Euh, ñu leen ko moom nii bu ñu fii dañuy jëm fii ci sa euh, mbokk mu baax nii. Ah. Euh, bu ko defee moom itam yëkkati kàddoom. ñu ngi ah. njëkk ci Baye Serif. kon nag dañuy tàllal suñuy loxo rek. waaye nag ñu siyaar suma Serigne. Serigne Cheikhouna Diop. mu baax mi. di doon sëñ Mudu Masamba Diop Samb. di doon sëñ Mudu Masamba Diop. ñu ñaan yàlla suñu borom guddal bi rek ci dem. tàllal rek bu ko defee Baye bay ñaan ba déwén te jàmm. wax mi waxul bopp fanaan maslama ونجي كل مسلم ومسلمة ah tey jii nag ñu ñëw ba fii ci kër Baye Mass Diop waaye ñu feggoog magam soxna Ndey Diop di ko xam si ni kenn la ci Bichri yaakaar naa ni li mu xam ci Bichri mënu koo wax ci benn jotaay rawatina ci télévision kon léegi soxna Ndey dañoo yëkkati woon ay jéego dugg dëkk bi di def reportage di laaj lenn ci magi dëkk bi ak itam doxin yi nga xam si ne gone yi Soxna Touré ah maam Sina Touré am da koy doxee muy doxin boo xam si ne doxin bu rafet la ba tax na boo ko xoolee sax man naa ni ah, maanaam tund bi yëpp roy nañ Bichri Laye ci seen bis bii ndax fenn fu nekk fi ne am na bis bu nu ko defee nag grâce nag Bichri Laye kon léegi loolu ñu ngi koy sant yàlla di ko sant yonent di ko sant Serigne Touba waaye kon dañ lay dékk micro nga wax lenn ci sa diggante ak sa mag ju ak sa diggante ak bokk yi nga xam si ne bokk Bichri Laye ak diggante ak xale yi nga xam si ne dañoo def bis bi nga xam si ne yaatal ko nag ba kenn ku nekk am ci rôle boo xam si ne man ko ci mën a suyee kon soxna Ndeye Diop bisimilah. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax leen masaw coono di leen jox seen wàccuwaay ah sama rakk ji moom li ma xam ci moom damaa xam ci moom jaamu yàlla ak nangoo liggéey ak fonk mbokk fonk dëkkandoo. wane ba mu ñëwee Boussoura ba tey ba mu juddoo fi Boussoura fi la yaroo fi la màgge jànge fi ba dem Dakar liggéey ba des ci a ak njabootam wër ko musuma gis ku mu xulool mbaa ku mu xeexal hmm, su ma saana am problème xam nga man damaa pànk maa daan jóge ca ca Nobil ñëw fii ci Mboussoura di ko di di ko jël intervention moom yàlla da koo yar def ko taalibe mu di jullit amul xolub kiñaan amul xolub toxor ku mu gis def na la ni boppam Mboussoura lay nag li ma ci xam bari na dama fee yàgg hmm. te sama maam sëyoon ak mu xam yaatu xam-xam yaatu loolu ci busura mu di ko wax lu bari ci busura saamaam di ma di ma ci waxaat lu bari ah busura nun dañu fee yàgg ndax sama baay nijaay Ibrahima Mbooj la fekk si woon baay xale yi sant Mbooj nekk fi nijaay maam Ibrahima ne fi di gërmi gu bañ ba yàlla dogal ba mu jógee waalo ay bal da ko dara doq ko mbayum gerte moo ko indi Kajoor bi mu fi nekkee nekk fi busura di bay ba tekk fi waala waale ku jóge waalo ñëw dal ci moom waala waale ku jóge waale ñëw dal ci moom tool moom muur fëtim bii ci busura xay moom la ko moom lañ ko maam Samba Kane njëkk a jox suñu masaa di ndékki mbaa ñuy añ dañuy tëral gopp yi ndax mbooloo mi defe ni day santaane liggéey bi ñu sukki di añ mbaa ñuy ndékki day tëral gopp yi ndax bari ko su wër ay bokkam ba ñu demee nag ba waala waale commencé di ñëw ndóombil mu daal di nag ànd ak waala waale nag dem dëkki ndóombil sama baay nag moom. ak baay ma ko de des busura. baay Alaaji ji Diop mi ñu tuddee Elimane mi mu des busura moom. dem ba yàgg baay ma ko de jóge fi dem Kaolack. baay baay Mouroune mu muy taalibe Cheikh Massamba Diop Sam. maam Moussa Seye ci la jëkk a jokk baay Cheikh Seye mi woon ci Dobboron. mu dëkkoon di sëriñam. maam Moussa maam Moussa maam ko góor googu nelawee. mu jog jokk ci waa kër Cheikh Massamba Diop Sam. nekk ak ñoom nekk ak ñoom nekk ak ñoom. am na sëñ Cheikh Mat jóob am na Fallou Diop am na daal tur yu bari ci ci njóobeen waala yéen busula gii nag mun nu leen a fay noonu mun njabootu waala waala li njabootu Seydani Mbodj mun mun noo fay waa busula ndax man de seex naa te li ma tax a seex waa busula waa njabootu waa busula ñoo ma tax a seex bu weeru koor ñëwee sama teraanga day ñëw Touba Mbacké lay jóge Medinatu Salaam fu waay am kër sama teraanga bay fekk ndóob bi su ma feebaree. ren damaa feebaroon feebar bu métti fi nii mënu maa taxaw. ba ma demee Sobaal sama bi doom jël si ma yóbbu ma si benn clinique ma fay fajoo. Mm. kenn ku nekk sa participation fekk na ma fa. Mm-hmm. kon waa Boussoro bu nu leen a fay. Mm-hmm. waa Boussoro nag. Mm. man maa Moustapha lay moomeelam fekkuma fi. Mm. moomeel bàyyi ma kumbalay. maam ma moo fi fekk. mu nekk fi ba jóge fi dañu yóbbu ko sa posin ma kumba. bàyyi Moussa maa Moussa lay bu Baxdaas. day ñëw ma war a moom si Boussoro. ay ali sama ki gaalam ñëw ñëw bu sura ngoru sam ajuma mu war a ñëw fajaru dimanche samedi muy tëdd daal di ni maa ngi dagaan ci yàlla su ma naree dem bu sura di fa def dara lu waroo jaamu yàlla bu ma yàqal sama diggante liggéey bi sama sama Jóob saam yàlla bu ma yegg bu sura alxem samedi ja ca fajar mu julli fajar ba pare wujji yàlla borom sama nijaay Abdou Manga xaritoon ak Ilimaan bu tudd ko Ilimaan Jóob Alaaji Ilimaan Jóob mii teraanga ju ne indi na ko bu suura ba mu demee kër Ndiouga Kébé teraanga ju ne njaay bi maa nga indi na ko bu suura mm-hmm. ba ak njabootam jóge fi mm-hmm. dem Dakar fa ñu nekk ña nga fay tekki mm-hmm. ñii fi nekk sama nijaay dëkk bu suura ku ci xewle yàlla naa ñëw yàlla bu ma ñëw sama teraanga dina ma fekk ndobil ga ma dëkk bu ñu bayee dugub ma doyal bu ñu bayee gerte ma doyal kon suñu dëkkin rafet na rafet goo xam ne gii rafetaay mënu koo raw ma di leen ñaanal nag di dogu ci jëmmi yàlla ak yonent bi ak Cheikh Massamba Diop Sam waaw bu sura lu ñu mën ren yàlla ñu mën déwén lu ko ak ku fi jóge dem Touba wala nga dem feneen jëmm ji toog di Fallou mbay sunu ndonnante dafa sunu xarit day ndonnante sama maam daa xaritoog maga doye Moodu maga xaritoog Cheikh Sarr Alain Mbaye xaritoog Ali Diop Kayan Mbaye xaritoog Yilimaan Diop Gas Diop xaritoog Fallou mbay ma xaritoog Bintu mbay Mati lay xaritoog Sukay Mbaye sama doom yi xaritoo ak waa kër Fallou Mbaye Ngor Diome xaritoo doomi Fallou Mbaye mm-hmm, mm-hmm. kon ngar gi donante la mm-hmm. ba maam ma ko doy wàcceeb liggéey ñu de ñu ñëw fii di ko si saraxal ba ñu ñëwee teew ni jaay kayal dafa jël parole ni sama kër nday taxaw na sama kër baay taxaw na kër ku mbabi loolu ñooy sama kër nday loolay xata ñu sama kër baay kon yàgg na rafetoo gi yéen Fallou Mbaye mi am na gal jo bëkk dim la ko Ngor Diome ñoom wàcceel woon kon busul dañoo doon famille bu bu bu bu présentable hmm. am ngor am diine nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey. Hmm. benn xale bu dëkk bu sura hmm. buy jaay nga dem ci bitigam fekk fi aw ñool cigarette wala leneen amul. amul ci kenn ku koy jëfandikoo ku ko dul jaay doo ko jëfandikoo. kon nga la nga gàcce ngaalaama. waa bu sura Njaw Jóob mi sama rakam lañ dippee bàyyi Elimane Jóob. mook sama bàyyi la lañ dawal daloon fii ci bu sura maam Ndiaye bàyyi leen fi bàyyi leen bu sura ñu nekk fi. ba tey lépp rafet na. kon maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla kawe seen njort luñ yàlla yàlla may leen lu kawe seen njort xale yi sant Njaay damay ñëw ci ñoom ndax seen yaay damaa bëgg di ma teral bu laa ngay teral ma su weer koor ñëwee mu jox ma teraanga bu tabaski ñëwee mu jox ma teraanga moom ku waa kër Samba Njaay ñii kële na le xale bale maa yaayam noo bokk ndey caat ma Samba ak Serigne Jolla caat ma Samba Seydaane Mbodj ñoo bokk Serigne Jolla Samba Sine am na Seydaane Mbodj Cheikh Sam lay am na saydaani mbooj Cheikh Abdou Sarr am na saydaani mbooj Abdou Latif lay am na saydaani mbooj Abdou Karim lay am na saydaani mbooj kon gàcce ngaaraama wàllu xarit ci ñun teral nañ ñu jox nañ ñu cër yal na yàlla teral wasalaam maaleykum suñu mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla sant yonenteem ba sant Serigne Touba mi tax ñu tal ko seen télévision Assalaamy TV ak Eli TV ñoo ngi ànd ak yéen rek ba ba léegi ci biir bu surale yi eh, gis nga fi ñu jógee léegi ci kër euh, kenn koo xam di Baye Mass Diop waaye nag ñoo ngi ànd ak Assane Ndiaye eh, Assane Ndiaye moom Baye Samba Ndiaye eh, kon ñu ngi fii nag ci école bi dañuy dañuy dañuy wàcce suñu kàddu nag eh, dëkk micro bi Assane bu ko defee mu wax lenn ci waaye nag bala moo xam naa leer na ma bala moo wax dina wax ci ndigalul waajurum bu baax ba ba ci noppee nag ñu diglu ko nag ci école bi kon sëñ Assane bisimilah kàddu gaa ngi noonu. bisimilah Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jégalu nag ci kàddu yi nga xam ni moom lay yëkkati nii ndaxte lootu naa ci lool mu mel ni euh, day na jaar kër ga léegi sama papa sëñ Samba njaay ni naa wax ci turam xam naa kon ci turam lay njëkk a wax rek doog a jàll ci leneen ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di siyaare sëñ Modou mbay ci initiative bu rafet bii nga xam ni mi ngi koy def ci dëkk bi ndaxte ca suba ba léegi wax dëgg yàlla mi ngi wër di interviewer mag ñi ñuy wax ci cosaanu dëkk bi ak lu baax loolu moom ñu ngi ciy sant bu baax a baax sëñ Modou. Euh, di ko ko ci gërëm ndaxte lu initiative bu am solo wax dëgg yàlla. loolu weesoo mu mel ni sëñ Samba Ndiaye xam naa rek ay kàddu yu mu yóbbante ci mbokk yi di ko commencé rek di nuyu sëñ Cheikh Ndiaye ak sëñ Abdoulaye Lahat njaay sama mag xam naa su ma leen nuyoo rek ma leen di nuyu naa ñëpp di wax ne rek euh, sëñ Samba Ndiaye moom nee na ma daan naa sant mbooloo mi gërëm leen ci kàddoom ndaxte wax dëgg yàlla initiative bii nga xam ne ñoo ngi koy doxal ci dëkk bi kontaan na ci lool waaw nee na daal comme niñ koy waxee doomu ñay moom ñaanal ko mu gudd fan rek ndax jër nga koy ñaanal mu rëy noonu daal la demee nee na daal naa mi ngi ñaan yàlla defal ñu taw tawfeex ba lépp lu ñu man ren ñu man ko bu déwénee ndax moom dafa kontaan lool ci li nga xam ne gone yaa ngi koy def ci dëkk bi ndaxte mënoon nañoo ne ci leneen wala ñu di doxal leneen loo xam ne bu boobaa mën na koo metti waaye du ci mën dara waaye nag comme que suñu yitte yéeg yëpp ak suñu jëf yi ñu ngi koy def loo xam ne ci dëkk bi la ci lu baax di wax lu baax nekk benn waxte yàlla nee na kontaan na ci lool maa ngi jàllal nag ak ñaanam gu jëm ci ñun loot naa ci lool ci wax ci kàddam waaye daal ni mu ko tënkalee noonu la mu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen sant fu mu toll loolu mooy yéeneem ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullah